saaga waaw kuy dóor moo mën kuy saaga action pré action rek ci jamonoy action la ñuy def bàyyi jamonoy waxe waxe jël jamonoy jëfe jëfe bàyyi wax ji tey jëf looloo neex Soumboulou Soumboulou Soumboulou waaw dóor mën kuy saaga ja nga ko fi mu jàpp voilà. lan la. Badoo may ma waaye yow yaa ngi saa waay nu ngeen def. ci la. payoor bi xam nga nekkatul sama loxo. xam nga payoor bi moom jëlee nañ ko sama loxo. te damay bañ ñu naxasal la. man waaw. kenn du ma naxasal. ah daf may fay ba mu ñetti yoon sax. luy fay ba muy yoon. lu ne la may defaral lu nekk lu nekk loo xalaat. li ma jëndal ay bijoux yére bi barki dem bu ñu àndee Cameroun de la ne man ma gis Baye Modou mu exposé lii Baye Modou jaay ma ko nii xam nga ñaar la ko jëndee. 200000. Ah. saa waay la jëndee yére bi 200000 200000 ma tege ne ci lay yem. non kii du nit sax moom moo ma bëgg daf ma bëgg lu ne la may defaral. wax nga ko ñu egg suñu kër sama yaay muy muy may sama yaay 100000. may sa yaay lan. génn gis sama tata may ko 25000 di toj kër ga. taxaw buntu kër ga am benn meeru géwél bu ñëw ki ne say sama xarit dafa ñëw rek mu may ko man dama waaru sax. ñoo ko ñëw mu may ko ay 15000 ñii ay 10000 suñu waa kër kër ga di toj barke yëlati bi xam na nga doog a ñëw suñu kër nag bilaay moo ma jëndal cheveux bi yóbbu ma ma defar sama bopp bilaay jatoo ma jatu li sa bopp bi moo ko ci bi moo ma ko jëndal ci jatu mu defaral ma salon ay tuuti lañ jaar na bi kay moom démb maa ko moom jëndal ma ay carax ay dàll mënu ma la wax li mu ma jëndal yëpp ma merci ah dama kontaan ci moom sa xarit bi ah. ah wax nga ko du nit du nit dafa baax li ma jëndal yëpp. jur nit xoolal bi may wàcc ah, bi ma ñëwee tey ji dama xëy si rek mu jox ma cinquante mille ne ma pour ma dama koy nduggi jéele. xam nga altine yonent bi moom ku ci deful. Hmm. def ci sànni samedi firaaw na rek. lu tax loolu. dara wallaay waxit la rek. ah man dama fi liggéey nag dama sonn dama. dëgg la dëgg la kay waaw waaw dëgg la. ma dem merci ah waaw waaw dama doon kii rek bañ ku la kii rek. Hmm. ma ne nga àdduna de.

bu demul ci altine yonent bi. dem ci samedi boy euh, town. xam nga wax jarul wiiri. waaw waaye yow lan nga bëgg a wax foofu. Eh, xam am na foo xam nag bu suma fa bëgg a àgg ak naa fa àgg ak yow. loo bëgg ñu xeex xoolal yi may sol. waaw ay mètre trois cent. waaw ah. waaw adduna yëpp di ko wax mel ni du sama sama xarit. waaw nga jàpp sumbulu bàcc li mi di ko jëndal ay yére deux cent mille. di ko fay ay cent mille ñetti yoon ci weer wi. di dem di seeti yaayam di fa wesaana xaalis di jaay jomba ñaaw. alaaji te doo tus déglul koo xam ne bu cëroo ñëpp xeeb seen cër daa war a mujjee cëru yow fàttewu ma la sama xarit xam ah Samb yow da ngay fo nag wala la fowuma yaa yow ban foo nañ xeex xeex nga xam ne fowuma nañ ko maye nga xam ne foofu waaye non da duma ko may dama koy jaay waa loo ko jaayee ma jënd ko sumbulu ba mu fi ñee nga ne ma alaaji dimbali ma mënoo ci xale bi dara xale bi ay yeneen gaa nga ko yor ci dara yeen ga muy bëtt sa poos <laughs> ngay jaay mel ni ma li man man ngay xas xawum nga mel ni ku pëyis da nga xas waaye man ngoonal gi laay arrêté sax damay ñibbi yow daanu nga ah ñibbi woo ndax arrêté ngoonal gi ah. ala da ngaa daanu daanu si naka da nga koo mënatul si na nga jëlee woon espace si mbulu ko tey maa ngi fay de nga ne baro fay balaa ngaa fay da ngay am bés bu nekk nga ataaya ataaya booy njaay mu indi gan deux cent ah, xam ne maa la gën a sës sax koor gaa ngi ñëw nañ baalante ak moo gën baalu ma la ah yàlla bu ñu yàlla boole baal yaw asalaamualeykum. sa bëti jaar yeeg sa ŋaami wax ji ci kër gi coow lu ci kër gi lumu. jaay kii. wuy ma fi waxati ay lu fi ataayam. maaleykum salaam Ndiaye. bàyyi leen lépp da ngeen a. ku mer bokkoo. ñëwati naa. pardon mën nga maa xalamal xalama ku ñàkk ku ñàkk. ku mer bokkoo xalama ku ñàkk ku pauvre. Ndiaye Ngom waaw ah, père dikk naa. Ndiaye. li ma xamal ku pauvre waaw dalatina mbaam mi fan ko dal. koo indi tey. sama waxi démb. waaw mooy sama waxi tey. dëgg la dinaa fi wax. wax nga dëgg. kii ma andi. waaw budul woon moom. waaw xale yi duñu xam seen histoire ëllëg. waaw El Hadj Bekay mel ma moo ngi nii. mi ngi nii mooy laaj mairie bu Grand Dakar. am nañ gan <laughs> ah, bu Grand Dakar. am nañ gan eh, non non non non yi ah, ah, dañ maa ragal. xeeb na télé ah foofu dañ maa ragal. na télé. xeeb rajo. waaw xam nga na rajo. ma nga ca télé 2STV. waaw mooy borom Bantamba. waaw léegi mairie bu gën a Dakar lay laaj. Bécaye yow mi moomi non non non bul moomi day moomi xalamal xalama ko ñàkk père lu xew xalama ko ñàkk mooy la dañoo am gan bekkaay mbay mi nga naan xalama ko ñàkk muy ma lan lan lan la lu xew ñu la dëkkee man ko jënd moom kër gi ba pare mu napp lay yaayam lay 500 ah, man da yaakaar naa ne on oh, du ma ko wax ci kër 500 millions astafurlah génn foofu bekkaay na ngeen def fii nga génn liñ naan li ma naan sama màggee na yow laa bëgg a mel dégg nga ma am gan. ah dañu am gan naa la. maa ngi lay fay laaj yaa ngi ci jàmm. yaa baax. Jali. naa la. kooku mooy euh, Baro. <laughs> bu baax. waaw yéen ñoom ñu ngeen di jataayee. kii dafa noble. dëgg la. liñ naan le sang noble ne mange jamais. dëgg la li tax mu noble mooy. Mhm. buñ ne ceeb bu neex fan la ñuy wax. ngéwal. buñ leen nemmale ku ñuy wax. ngéwal làmmiñ wu neex ku ñuy wax. ngéwal buur géwal a ngi toog. ba ci sañse. ba ci sañse. waaw waaw béykat su ma la Lat Joor fooy gën nag man Lat Joor Jóob. Ah, kul joor waaw waaw ndoy fal fatim ngay colo ma samba yaasin gis ah. kon sàmm nday bër deqalee nga yëngu su ma ne la alburi njaay biral penn ñooy ma njol seen eh. da laay wax bàyyi buuna ah. <laughs> sawa jaay eh. kër gaa ngi toj buur géwale gi kee ndaanaan buur géwale gi waaw koo kee xam àdduna kee miin Sénégal. wuy ma Sénégal dafa am ñu fi dëkk waaye miinuñu fi. xam nga kii. bu baax tonton Bekay. Ah. Bekay Mbaye grand des grands. maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm bàcc li. bàcc li waaw waaw. yàlla dafa def ba ma ñëwee ba tey. moom gis nga bassin moom bassin. Ah. sol ko piir ba baax na ca piir ba. piir. ala bassin piir nga sol. noppi eh, noppi. lu xew ni day am ñu mer man de lañ ma teral am ñu mer wax dëgg fa yàlla. xanaa ba xuloo ba Dakar Mbaye ñëw seet rek. ma lay sargal. masee fii nga. togg naa ba pare waaye nag. dama koy sàppali rek dëgg neexul. waaw yow xam nañ la togg ne jardin ngay toggee. maa la ko wax. ah yóbbul. Ah, beurre bi mbaa moo nga ko ci togg bi. nit na ci mat bàyyi fi mayonnaise bi. ma bàyyi fi mayonnaise bi. Mhm. jadi daa yor. cum dawal. Bécaye na nga def. waaw sant yàlla alaaji. waaw dafa am loo xamante ne li occasion la tey. waaw. Eh, ma tey nga wax ma. kan mooy Bécaye Mbaye. Mhm. benn waay la bu dëkk Grand Dakar. Grand Dakar. yaroo fa. màgge fa jànge fa. taxawaalu fa. ndeysaan dafa kabooy bandi. ah. <laughs> kabooy bandi mooy lan. <laughs> bi nu nekkee xale. <laughs> Uh-huh. dañoo amoon ay cinéma. waaw El Mansour Al Akbar Liberté. amatul léegi. Mm-hmm. mais boobu ay kabooy ñoo lañ daan dawal ci film yi. waaw waaw. Ah? ay John Wayne. waa waaw mi ngi noonu. Mhm. ay ay cinq pour l'enfer je ve je tire et je reviens. affaire yooyu. <laughs> ñu ne bu ñu nekkee ci koñ bi bu ñu jógee cinéma. dañuy def ko mooy bandi. Ah, ci biir koñ bi. waaw ci biir bi ñu am benn jeune boo xam ne kenn mooy doon jeune ñu si des di làqatu ci ginnaaw oto yeeg yooyu. Ah. waaw boobu lan mooy colin gi seen colin lan la woon. non boobu nag chemise centrée moo xewoon. waaw. ak pat de la ak pat de kol ga lan nga kol ga gu lay doon. doon jur góor. <laughs> Eh, waaw continué. yan daan sol yan daal. col bu ak euh, tête de nègre. tête moo xewoon booba. def afro. afro waaw def afro. waaw doon doon doon booy bu xaw a jàtt rek et moo xawoon ak et puis. yéyee waaw yéyee waaw Alpha Blondy woy na ko. Euh, quand nous étions petits. nous voulions tous devenir yéyee. yéyee oh, effectivement voilà boobu Jimi moo xew. waaw xam nga yooyu mu doon takk takk fulaar yi. waaw bi takk jaaro yi daan nga takki jaaro. non non man nag daa heure malheureusement <laughs> xam nga heureusement. waaw <laughs> daaw ma takk. heureusement heureusement. <laughs> daaw ma takk daaw ma takk ay jaaro. Mhm. ñu continuer ci bekkaay ba tey. waaw daaw ma takk jaaro bekkaay noonu la meloon. Mhm. et puis xam ga booyu Grand Dakar rek day turbulent. waaw mhm. waaw. bari histoire bari xeex. mais lu ma woon nii de. waaw nii ngeen di waxee nii may wax ak yéen. ah, ah. raak temps boobu ba léegi raak naa ak yéen. <laughs> ah waaw parce que. moom ci raak googu sax. ba nii mu mel ni yiwee ko. Uh-huh. selle ko. Uh-huh. am na ay jamono yii ñu am na ku mu fi génneeloon pistolet. alaaji alaaji waaw. non dinañ ci ñëw non ñoo ko yokk. Ah. ñoo yokk waaye jëf amoon na. amoon na daje bu ndaw rek. waaye <laughs> amul woon. saa yi dama koy siiwul amul am nga loo génne. non non ñaari baaraam xam nga kaboy bandi. nii ah, la mu daw waaw boobu eh, tamit noonu dégg naa ka mu la amu fa yokk. waaw ah. bàyyi nii nga mel. waaw waaw Bécaye waaw noonu daal uh-huh. yaroo fa bëgg football ah waaw rek laa xam ne mais si lamb ji dañ lay gis non lamb ji daf maa dab ah da dab waaw lamb ji daf ma dab mais da nga waaw mais football bokk na ci li ma gënoon bëgg ndeysaan waaw bëgg football am équipe bu ñuy wax foofu neex na baro mm-hmm. Ah, mm-hmm. di dem stade lamb ah, après la ñëw ma commencé di màgg tuuti laa ko bëgg mais def nga moodu moodu wax def naa Moodu Moodu tam. immigration fan immigration. ban dëkk nga nekkoon France Paris. ah Paris génn gii. Paris gii nga def fa ñaata Paris def naa fa dix ans normalement ah. ans. ah oui ah, waaw lu tax nga bàyyi Paris ñibbisi. non parce que. dem naa ba nga xamante ne ni ñëw ma woon sax pour ñibbisi. waaw Beka yow yaa ngi def jukkoy géwal de. Hmm. Hmm. waaw may wax ak yow yàpp yu ñëw rek nga naan nii. waaw dama koy xool parce que. <laughs> waaw yow xam nga. concentré wul ci li may def. <laughs> dinaa ci concentré. même ci mayonnaise ji jadida la. waaw ah jadida waaw nga def 10 ans Europe. 10 lu tax nga wàcc ko fa parce que 10 ans. Europe naqariwul woon. trop ñëw ma woon pour ñibbisi. waaw ban année la woon dama. ay man 80 la 80. 82 ah. boobu Europe neex na. boobu Europe ah, naqariwul boobu Europe neex na. boobu français bi. waaw wuute nga ak jamono ba ba jamono ja ba ñeen ñeen ñeen ñeen ñan. ñeen ñan ñeen ñan. waaw du lépp la ñu mën a wax. naa ci jàng sa dictionnaire sa dictionnaire dinaa ko wax. waaw dimbale ma man. waaw fekkaay nga ne. moment yooyu waaye 82 ba ay 89 yooyu ah maa ngi Paris. ah waaw. gars yi di xooslu. dëgg la lu ne ma dugg ci. Mhm. di xooslu di liggéey di yónnee sama waa kër. ndeysaan di leen taxaw. waaw mhm. loolu la nag fàtte wu ma woon ah. waaw fàtte woo lan. sama ginnaaw. waaw ah, yaa ngi doon ah, yónnee maa ngi doon yónnee. waaw c'est très bien booba téléphone yi melul nii de. aywa béykat bi boobu lu téléphone non booba koñ bu nekk benn téléphone a fay am kër paay kër baay góora la ñuy wuyoo rek noonu la daan demee. waaw. ah da nga daan woote kër baay góora. da ngay woote waaw benn daw wuyu ji. à côté. waaw béykat yi xam ni. Bekkaay woote waaw xam nga bu maire yi di dem di wuyu jéeg yooyu takk seen digg yooyu. mais Bekkaay doom jàng France yooyu booba. est-ce que du boobu la émigration ëpp xaalis parce que boobu kenn du la jot pour wax ne la gaz ba jeex na ceeb ba jeex na dawlin ba jeex na. tàgge la waaw ndaxte waaw lettre rek moo ñëw. lettre ay ñëw. waaw lettre rek moo ñëw te day def ay un mois ci yoon bi. non une semaine ah. une semaine une semaine. waay booba lettre mooy ñëw une semaine nga jot sa lettre ba nga jógee Europe si nga réew mi waaw xëy na ñëwoon vacances rek dama ñëwoon rek far giro waaw toog waaw toog di xoosu nag mu métti ah. di def lan dara di sommet am jabar. waaw dañ laa dëj am dañ laa wootal ñëw. Ah, parce que am na liggéeyi wootal. jékki-jékki ne ko ko daw wootal. am da ngaa ñëw benn cuk su téye la fi am lan. non nee la am jabar amul cuk amul boobu am naa jabar. Uh-huh. am nga jabar. leer na kon. am naa jabar ma nekk fi ak suma jabar. di xoosul nag bu ma xëyee fajar. waaw ma dem ci zone industrielle. waaw. di wut liggéey. waaw di journalier wu. ñu may fay journée ay mille deux cent waaw yooyu may xoosu di ko liggéey. Euh, Bécaye nga may ma ndax euh, gis nga àdduna am na loo xam ne dalul yëbbante ba xam nga lu ma lay yëgal doo jaamu kenn bañ lay takk bakkan euh, bakkan lekkal ba pare soo ko xalam. ko wax kenn dum xalam di wokkub gannaaw <laughs> bu attaay ñëwee naanal bu lekk gi taajee lekkal soo ko xalam bu la kenn fatt payoor yi di tardé lépp ñu koy brûlé feneen ñu fanaan ay. Bécaye nga jéggi xam nga moom bu gisee gan moom day. waaw Bécaye waaw nga ñëw di xooslu fàtt ñëpp. ci naka. <laughs> ci naka <laughs> yaa ko ñëw fàtt mhm. nga ko mu génne feemam. Mhm. bu téye micro bi ndeysaan ba ni Bécaye Mbaye ak. Bantamba. Tamba. mais nag Bantamba ba avant nga ci yegg si vie bu gudd la. ñëwal waaw ci loolu la ñu bëgg nga ñëw expérience la. la du du doonoo gis ko mu naan Bantamba. waaw léegi ci nan nga ñëwee làmb mais vie la boo xamante dafa am ay étape ak ak doomu aadama. waaw addunaam nii la ah te man noonu la suma adduna. waaw ñëwal ñëwal fan fan la waaw ma nekk ma xoos lu foofu ci usine bi. waaw ñu fay la des fois de waaw des fois du mat 1200. waaw ma ciy xooslu di ci xooslu ba yàgg ah ay ay lan ay dix ans. dix ans yi li nga ci liggéey bu matee bu matee matee trois ans ci la yem ah. waaw da ngay xëy sax ci biir kër gi ndekki du am ah. Mm. ah ngeen xooslu. ndeysaan ngeen muñ. des fois booy bëgg a jàngi ah. nu am lu nu yóbbu. waaw nga ne leen dem leen bu ngeen demee lijjanti. après ko fekk leen. école ñu lijjanti defal leen pain chocolat ak pain bi nekk si télé bi di ñàng ñàngul. waaw ci la ki ki nekk seen TV. waaw waaw ah. booy boobu ci ñooñu la bokkoon ci rang boobu la. waaw beneen bi nekk 2S. Euh, waaw ñooñu ñëpp dañ leen doon wax dem leen. Bécaye nag yow ben benn xel. ah, <laughs> ah di jël sa njaboot wasaare ci télé yi. waaw <laughs> kaar. <laughs> Ah, ah yow it de Bécaye bokk kilifa la nekk kilifa yow mii waaw Bécaye ñeneen ñu fu ñu ne alaaji ñeneen ñi ñoom amaguñu fenn ña ngay jàng bal jàmbur waay waay waay Bécaye waay bal gan gi waay Bécaye waa Sénégal la waay jamono di jamono di dox waaw ci noonu ah jamono di dox ba benn jour waaw ma dégg ne am na benn rajo buy waaj a ubbi rajo waaw bu ñuy wax Walfadjri waaw ah mais comme que man maa ngi doon bind Bécaye jaar nga fa ah Walfadjri maa ko ah, toog nga naan lan. ah déedéet jaar na Walfadjri ah. mais seen patron yi fii. ay ñoom sama boy la moom ah, ah, seen patron yi ne fii. Alassane Samba Diop ak Alassane ay ay ay Alaaji Assane Gueye Assane Gueye ñoom Sidaat Cuune Sidaat ak waaw ñoom Aïssatou Diop Babacar ak say boy lañ ay samay fils la ñoom samay boy lañ ñu jàkkaarloog man am seneen fu ñu jaaroon waaw daal di def nii ñëwee nii <laughs> waaw dinaa ko leeral. la boobu. non ah, ñoom ñoo fa nekkoon. ndeysaan. waaw et puis vraiment oh. ci équipe bu Walfadjri bu njëkk ba man ak ñoom Mamadou. waaw Aliou bi. waaw. Uh-huh. Ah, nga toj wal ñoom ñëpp nekk fa. waaw ah, xaw a rek. foofu. foofu def naa fa huit ans. Walf Walf début ba 2005 bi ma fay jógee Falaate. déjà léegi nga jógee fa dem. dem 2S. Walf programme nga fa yoroon. ay lamb la lamb ah lamb diinum ah, Sénégal nga ci lamb ji sa demu 2S. ndax Alaaji Ndiaye moo la débauché foofu. non non non non waaw non benn émission la woon Galaya bi bëggoon. waaw benn waay bu jàppale Kebs quoi ku toog ak Kebs di liggéey. waaw ñu calculer âge Mansour Tafa Diop ni leen non mais am na benn boy benn boy jeune bu nekk bu nekk fële. Walfadjri bu nekk Walfadjri. waaw nañ leen ko seet moo gën waaye. Mhm. après bii bii baax na bii waaw bii suuf bu gisee yàpp dañuy tàqali ko seen sago. yow daa bëgg ndaw sax ñu wuyu. ba dëgg kay. Oh, après waaw après bi Tafa Diop ni leen nañ leen indi. Tafa Diop ni leen non non indi. waaw ki may dégg fële Walfadjri. léegi nga dee de loo Mm-hmm. waaw ki may dégg wal fajri di leen ko waaw après ñu wooma waaw ma dem def ak ñoom émission bi Gallayaabe ñu ne ma doon am benn émission Bantamba ñëwal nga animé nu ko xanaa embauché wuñ la woon Walf ankay après di ma fay ma nekk chef de desk chef de desk olof waaw am fa salaire bu baax waaw ñu jëlee ma fa yóbbu ma Walf Fadjri di ma fay moitié yëpp ma 2S. waaw li ma fay moitié. mais boobu da nga ci gis intérêt. wala ah da nga ci gis avenir wala da nga am loola naqari woon Walf moo déedéet Walf bëgguma fa woon a jógee xalaatuma ko woon. ndeysaan fol Walf ba léegi Walf <laughs> sama maison. waaw waaw sama kër la waaw waaw. Walf sama kër après. après ma dara mais ya fu lu jeex jeex. ñun dañoo gis ni. Hmm. Eh, waaw mais alaaji yaa iñaante bon alaaji yëg nga ni tubaab yàq nañ la <laughs> alaaji doo bàyyi doomu jàmbur ji mu mus ci lii damay fay xaalis nag après ñun ñu gis ni da nga ñëw car macha allah imposé ci lamb ji waa defi la woon génn ci say feem def ci say bagage ba nga xam ne fu nit nekk waaw sa waxtu jotee rek day taqalikoog sagom mais loolu moo taxoon ma risqué waaw bàyyi parce que li ma doon fay euh, wal fajiri mhm. moitié bi lan ma doon fay 2S. mais damaa xam ni du yàgg moitié boobu. am na lu ma indi indiwaale loo xam ne wóor na ma ni. boo bu ma taxawee ak ñoom nii. Mhm. léegi ñu woo ma ñoom seen bopp duma leen ne yokkal leen ma ñoom ñooy toog ba caag ni ma kaay. te noonu la demee. Mhm. Ah, alaaji damaa liggéey 2 mois rek. waaw dakaay. chef bi woo ma. chef ba waaw. waaw ne ma yow. alaaji am lan la doon fay mu ne waaw mu ne ma double nañ ko. ndax kontaan si yow. léegi ma romb déjà salaire ba woon fee. waaw très bien. waaye ñun ñu di toogaat 3 mois. waaw ñu doublé waat boobu. ñu yokkaat. Ah, waaw kon yow mën nañoo wax ni millionnaire nga. fa nga faa xaar non pas millionnaire. waaw. millionnaire mooy ku bari ay millions. waaw déedéet. am nga ay millions. waaye da ngay fay ak par weer ëpp na million. ah non non bu ne dañ ko triplé. depuis boobu waaw dañ ko triplé. waaw waaw boobee. waaw jamono joojee. waaw waaw mais léegi freiné nanu ah. freiné nanu lu tax du freiné lu tax. ah déedéet loolu sonn loolu sonn. ñu gis ni El Hadj Ndiaye. ku la respecté la. jërëjëf Cheikh. Mm. ku la bëgg la. Mm-hmm. waaw loolu am na ni la Sénégal bëggee ñu gis ne Bécaye nit la koo xam ne dafa yiiw. Mm-hmm. léeg-léeg nit xoñañal ko sax alaaji xoñañal ko. Mm-hmm. mais mu ne tek Bécaye tey ma laaj la ndax bu dem baasun jotoon di nga dellu di nga dem baasun. baasul fa dëkku Yékini <laughs> waaw waaw defi reportage defi reportage ah saa dégg naa baasul am nga fay xeer déedéet déedéet waaw kon léegi waa baasul bu ma woo dama fay dem dëgg la man amul benn village benn dëkk bu nekk ci réew mi bu ma jomba dem ah. defuma kenn dara non Yékini dafa la waa baasul jotewuma ak ñoom dara ay nit ñu baax la ñu ay Yékini rek la Yékini rek la Yékini rek la jotoon nañu yëg ni yéen ñëpp gis ngeen ko ci. waaye wax dëgg ñu waxtaan en direct la non non loolu loolu waaw loolu en direct. non yëg ni dafa def nee na amul leneen ci taay daa dem ngeen te amee ko fa. dëj loolu la wax dëj dëj. dëj amee ko fa te dëj ba waaw. kële kële wuy ji barsàq nga bëgg koo yóbbu barsàq ya <laughs> bëgg mu dee. dañu bëgg dañu bëgg. waaw leeral nga leeral loolu. Mhm. lan moo motivé woon Yékini ba tax mu wax loolu. ah non li ko parce que par la leer na. Yékini baalu na ak xam nga je n'a pas compris. waaw mais yow war nga ñu mën a leeral par rapport ak loolu. waaw li ma leen di leeral ma <laughs> mais ça alaaji mi ngi xool xolam kat. bu leeralul rek moo tooy dama xaalis ba. bu leeralul rek moo tooy. ah non non dara amul woon non non dara amul woon saa non non non non non tuuma ga dañ laa tuumaal. waaw te liñ ko tuumaal. c'est extrêmement dangereux. non non xaaral ma wax leen la. waaw waaw sama xarit la woon. woon waaw. Mhm. sama xarit la woon. na passé de considéré na passé de. waaw non non am na passé quand même. la vérité ay nit rek la ñu. Mhm. alaaji may ko ah, la woon. Mhm. ñu daan ànd fu ne. waaw lu mu xam wax ma. waaw lu mu yaakaar ci nit it. ci communicateur traditionnel. ci man la doon dem. la. buy tukki man lay wax bu ko nit invité man lay woo léppam bu may def sama interview ak moom vraiment da am différence par rapport ak ñeneen ñi waaw moom mu koy seetlu ay nitam noonu waaw vraiment et ma bëgg ko aussi vraiment nga bëgg ko wala nga bëggoon ko bëgg moom du deñ nga bëgg ko ba léegi moom du deñ waaw bëgg du deñ waaw ma bëgg ko mhm. ñuy ànd di liggéey daal vraiment mu doon sama waay mhm. ba jour boobu nag. waaw waaw ma am lu ma bett torop. parce que mm-hmm. j'avais pas compris comprendre te ba tey jii comprendre ma de. lu xew waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. ba tey jii affaire bi daf may damay toog ba ci ak mu jaaxal ma xaw ma woon lu tax waa ji defee. mais tu sais histoire bi dafa gudd ku nekk daf la fu la woo. moom lañ lay laaj. dëgg fu mu la woo rek loolu lañ la laaj yow da ngaa yow Yékini yow Yékini nit la nit day juuma ah. peut am na nax nan ko. Mhm. ñëw ñu ko Bécaye daf lay contre. kon ñettali moo indi xam nga man problème bi. Mhm. mbër yi. bu ku ma ci toogal. Mhm. yow boo ñëwoon fekk nuy toog nga ni ah kon kii muy mbërëm. man noonu laa mel. a parce que man nit nit yëpp mbër ak footballeur rek. comédien mm-hmm. ñëpp ci bokk yem mm-hmm. man bu ma toogee ak yow damay sincère envers toi damay waxtaan ak yow loolu boo ñëwee mm-hmm. fekk ma ma toogal Cheikh di waxtaan moom da nga ne eh kii Cheikh mooy xaritam Cheikh la faral fekk na non non non man gis nañ ko parce que bi mu la waxee loolu yow nee nga jàkk caméra bi naan yëkkati <laughs> parce que sax sax sax saa di ko. sëñ Abdou Khadre Dieng laa parce que Abdou Khadre Dieng laa. bu fekkee ni que. alaaji. jërëjëf naa ko. waxee wu ma ko nii ah. ah noonu ko ko doon. ah déedéet non non ba xol ma jeex na. sa xol jeexi tàkk. tàkk seen ñaari xol yaa ànd wow koŋ. waaw et puis nag kon voilà vraiment nit ñi. affaire bi ku ko laal la réew. nit ñi mer ci non yow ku la laal laa réew mi. pas parce que dama comprendre lul. man ma oh, bett oh, oh. lu la bett man la. ah ñu ngi naan kii bi. xam nga lu la bett man la. waaw loolu rek la woom. mais après nag. Hmm. vraiment gisatu ma hmm. kenn. Hmm. yàlla rek laa gis. mu jël affaire bi teg ko ci loxo yi comme que kii mi ngi may tuuma. waaw ah non naa ko teg ci loxol yàlla. waaw. chute balaay wër chute balaay wër de chute balaay wër. chute ba mu mujj fan loolu wax ju. ci la yem ba léegi nii nii nii wala après am na suite. mujj daal Sénégal non non amul suite ban suite. non baalu na Yékini baalu. waaw waaw loolu am na wala amul. waaw moom aussi baal na ko. loolu sax trois jours euh, après affaire bi. waaw daje nañu benn kër. waaw benn kër xaritam. Mhm. sumu xarit quoi en commun. jàmm ñëw waaw mu baalu ma ma baal ko. mais boobu toujours baal naa ko c'est vrai. Mhm. mais desoon na ci man. dinaa leen wax loo xam ne man dama koy faral di wax. baaloon naa ko. mais vraiment ak mais baal bi dafa gaawoon trop. waaw ci trois jours yi baaloon yi baaloon naa ko. mais comprendre wu ma ba tey damay togg ci mu ne mais kii. nu mu demee nu mu demee nii. dafa baal te fàttewul. mais nag xam nga yooyu yëpp lan la. nit ñi du ñu bàyyi. Mhm. weer ak ci ñetti fan ci ñetti fan. dëgg la dëgg la du ñu bàyyi weer sama relation ak la. par des gars yu nekk ci biir presse bi. ah des communicateurs traditionnels. Hmm. des journalistes reporters. yoo xamante ne yow mës nga ma ko gis nañu ah? sama relation a mel mais ça les dérangeait. waaw waaw il faisait tout. pour ñu am problème. c' après nag loolu lii ma lay wax c' après lay doog a comprendre ni. Mhm. ndekete dafa am ñu def affaire bi. parce bu ñëwee ba taxaw bu naan ma. Mhm. nee nanu ma. Mhm. ça veut dire dañ ko wax. waa waaw ñu ko wax nag ñooy seytaane ñoo <laughs> yàqoon affaire bi. yow te fekk na booba vraiment xalaatu mu ay du ma man du ma du du faral mbër. Mhm. dëgg la ñu gis ni am na ay jamono. waaw. Euh, ay gauche yu bëri yu wóoroon 2STV yi parce que Bécaye Mbaye daanoo ko dégg mu def bantamba te kañul kañul ku ñuy wax maawo kañ ko. la gën a monteur. Mhm. réalisateur le grand réalisateur. Mm-hmm. Eh, tey ma leeral maa ngi ñëw maa ngi ñëw. non damay leeral bul ma dagg. waaye ma leeral nee nañu for naa ci woyu bay ñu ne moom mi bekkaay. bi booy yi jógee foofu ñëw ci benn tele bu ñu naan. gars yi suñu ginnaaw. Euh, télé bi nekk suñu gannaaw gi te ñu naan ko TFM. waaw. parce que am na ay booy yu fa bàyyeekoo. waaw yu waaw ñoom dul xaaf ñoom booy yooyu. waaw bàyyeekoo 2 ci télé boobu. moom mii moo leen leen jiitu leen ma maa ngi ñëw. ah parce que bi ko booy tàggoo moo leen ni jiitu leen ma maa ngi ñëw yabal leen ndax. bon loolu max la ñan ñoo ko wax. Ah. télé boobee. Ah. ñooñu fa newoon. waaw te bëggoon maa booleeg. ñooñu. fa ma ne waaw parce que man parce que. argument roof. parce que télé boobu. Ah. nee nañu sa kàmb nañ fi saawaay bëgg koo indi. waaye nag saawaay dafa fekk ni kële. bandira be am nu mu def ak moom. Ah, nu mu demee noonu waaw ah, ah, nu mu demee noonu. man damay yëg eh, lépp. Eh, eh. bandira be ko wàcceel kat kat boo xam ne dafa am lu ma bëgg a leeral kat bu mag la ko bandira be wàcceel. dawal mais boobu fekk na El Hadj Ndiaye jox na ma oto may koy dawal. waaw c'est-à-dire nit ñi. oto comprendre non non C5 C5 C5 du oto. waaw berline la rek joxagu la woon bi ngeen di wër yéen. waaw déglu ma magum jëmm jëm. maawo maawo musul nekk. monteur u Bantamba que cela soit clair. réalisateur Mao réalisateur direct la. bu ñuy def direct. la ñuy jël Mao mu réaliser direct. mais Bantamba Babacar moo koy monté. waaw léegi lu jëm ci ñooñu bëggoon ma jël. waaw non non man mënu ma woon jógee. ñooñu ponk yëpp jël nañu leen ak yóbbu leen foofu. waaw waaw ñoom noonu lañ mel. ñoom moom nekk ni mu ñu dem jëli xam naa ni sax dañ fa dem ah, xam naa ni dañ fa dem koo nome dañ leen koo nome bàyyi ko mu ñëw foofu bàyyil mu ñëw foofu àggale ñëwal di nga fa dem ñëwal dégg yaa ngi dégg ñu woo ma et puis sama xel newul woon ci jóge foofu moment yooyu vraiment la tesis et puis dafa nekkoon affaire bu yomb de trop pour mu jóge woon fa moment boobu ah yow kii defuma dara jotewu ma moom benn problème amuma parce que boo yi fa doon jóge amoon nañu argument wu jóge gis nga nag Cheikh. nit ñi dañoo tàmm lu wax ñu ne business. business waaw moo yàq bu ñu bëggee jàmbu sax ne business. waaw waaw time is money. business am na. mais dafa am business day am règle. waaw day am kóllëre business day ànd ak kóllëre. booba mënu ma woon a. non daanoo et puis ñu ni man maa leen wax. ñu yaa leen ni jiitu leen ma maa ngi ñëw. déedéet. ñoom waxuñu ma ko de. booy yi man maa rek ci man moment bi ma gars yi bi booy yi ñëw. waaw booba man ñi ngi négocier ak man. pour nga ay millions. waaw pour jox ma ko jox ma oto jox ma nangam loo xam ne ñi mewu ma ko fee wax kër gi tax <laughs> waaw yaa ngi dégg ah lu dëgër loo xam ne keneen kun ko waxoon ku dul man waaw te taqali nga yor mais mais dafa am booba loo xamante ni sama diggante ak El Hadj Ndiaye et puis ak Ndiaye mënu mhm. ma a jógee foofu comme ça ay nit ñu baax la ay ñu baax la dëgg ma seq ko ak ñoom et xam nga liggéey aussi da ngay dem ba ci yàgg fi ngay liggéeyee da mhm. ngay mel ni ku bokk famille nga. bi ngay nga ma fa kilifa. sa toog ba si ma ni man daal fii mu fi jógee. Mhm. et puis boobu maa ngi wut rajo. gis nga boobu bi gars yi di négocier noonu. Ah, yaa ngi di wax noonu di créer ay situation mhm. boobu man maa ngi wuti licence sa wu ma xëyee de ci biir négociation yi. maa ngi dañu may jox rendez-vous kaay ñu jox la sa licence ak des na signature rek nangam nangam. Mhm. ma récupéré ko dugal sama poos toog yàpp sama ni nem ak moom mm-hmm. rajo boobu sax man wax nga ceeg man mm-hmm. yow wax naa ceeg yow waaw mm-hmm. te corniche ba dama la bëggoon a débosé nañ daana wax ma bëggoon a daana wax maa bëggoon a débosé alaaj man daana wax ma dama fay daana wax jooju wax jooju daanu waaw wax day teew teewul mi ngi noonu boobu daal après ma réglé sama rajo ni au lieu may dem di dem feneen waaw réglé sama yëfu bopp wut sama ma rajo xëy na état gise dina ma jox télé. waaw ma xeex ma concurrence ak ñooñu. Mhm. man yow si télé man mais man man lépp a nekk si sama xel. lépp lu nit di avion. bateau <laughs> tout lépp lu nit di am rek nit a ko moom. Mhm. yàlla yooyu yëpp pour ñun la. lu leer man si je comprends bien kon waaw si je comprends bien. waaw kon da ngaa bëgg a wax ne. weesu na c'est trop tard mënatul nekk mënatuloo dem beneen télé. ñooñu soxla la kon mënatul ne. non pour pour pour bu ñu bu ñu bu ñu relancer woon encore kii bi. waaw ma bañ a tas seen yaakaar yi kon day yomb di. waaw pour le moment <laughs> daal <laughs> foofu nga leen di teg. waaw lan la la ko yëgal dinaa la ko yëgal de. <laughs> la ñu dàbbali la waxoon ca moom. Ah. fekke wu ma ko ne wóoruma. waaw ah. ci ay kàddoom laa ko dégg. buñ ko ko dàbbali waatee mu ñëw. Ah. maa ko wax. waaw dàbbali ma. télé bi ñooñu. ay guerrier lañu. alaaji xanaa yow. ay professionnel lañu. mais non ku ñu gësam tab bi ñor tab bi ngay ne. tuttu ngay ne beneen affaire ci télé boobu. dina ñëw de waaw da ngay dañuy bàyyi ba nga kook. man man ñu gëstu waaw mais fi ñu toll de c' est c' est bon ah fi ñu toll bu ngeen wooyee du ma ñëw. mais Bécaye fi ñu toll moom baax na loolu da ngay wax ci kër gi la rek uyu ma. waaw man non dañ ne ma. waaw xaw ma dañ la yee baa du waajee leen yoon. dañ ne yàq sa kilifa gële yàq sa kilifa gële dañ ne ñu neexootu leen yaakaar sa kilifa gee. Ah, Badara oh. alaaj jaay waaw wax ñu rek ñun ñu xam Sénégal xam. non non non Sénégal xam nee nañu nee nañu yow. waaw ba tax ba tax man bu dee lamb foofu 2S kenn defut faak man loolu. waaw bu ñu defee sondage ma jël pay. fan ci lamb ji may fay un bon salaire. ci lamb ji waaw ñëw alaaj yow jëloo pay ci lamb ji de. ah kay déglul <laughs> gis naa montage 2S. ak des yi nu mu. alaaj déedéet déedéet alaaj Bécaye gis naa ñu def montage ci yow. teg Messi waaw <laughs> ñu def Messi jël na quatre fois ballon d'or. waaw ñu def Bécaye jël na quatre fois micro d'or lan mooy secret Bécaye Mbaye ci loolu montage bu ma gis. ñu def ko deux heures bañ sonn. waaw bañ a guddee tëdd. ndeysaan bañ a mu jaral la ko. Mm. dugg ci banlieue bii. Mm-hmm. xool mbër yi. Mm-hmm. parce que man bi muy ñëw ci làmb. vraiment am na nu mbër meloon. am na ñu doon liggéey CNG di ci liggéey. liggéey boobu seen CNG doon liggéey. il fallait mu am presse bu ko accompagner. dëgg la bi ñu ñëwee aussi mu ñëw fekk 2S ay xale. te man amoon naa défi parce que dafa am télé boo xamante ne benn taabal lan daan teg comme nii rek. bu kii waxee jox ki bu kii waxee jox kii ñu léewtoo léewtoo noonu song nañ ko daan nag après nit ñi jóg ñi ma ni mais attends mais lii lii dafa war a jeex ay ah, yow bu leen sonal après avant r <laughs> mu tudde deux heures xam ngeen li fi newoon bu leen ma sonal yaa may dégg ma ni moom paa yi daal dana ñëw rek teg seen taabal wax seen i wax dem seen yoon il fallait ma wane yaayu mbër mhm. magu mbër mhm. néegu mbër kër mbër cumikaay entraînement coulisse yooyu yëpp nag ma ànd ak ay xale yu mën liggéey. waaw man leen dama am bi ma ñëwee li ma jëkk ba waxal ñoom mooy booy man dafa am nu ma bëggee affaire bi ah. Mm-hmm. yéen lan moo ci seen xalaat booy ne ma non non père yow liggéeyal ñun ñu filmer ñun suma yoon néew. Mm-hmm. waaw loolu la neex defal. waaw l' na nga xam ne nekkatoo ci rajo. Mm-hmm. waaw ci télé nga nekk télé ak rajo du benn. bon wax ju bari laa commencé woon. ratatat ratatat booy yi damay liggéey ba ci caaga kenn ngàdd ma. waaw na jóg bala yàlla na yàlla wéral say baaraam liñ lay teg ci kër gi métti na waaw waaw ma jël boo yooyu am na ñoom jeex na boo yi mosumoo xam làmb man leen kaa leen dem nga xuus rek ma xuus boo yi am fit mhm. xam nga des fois damay gis làmb jeex wala avant làmb ma def benn reportage bu sew du dara sànni ko noonu waaw mu jaaxal même yenn télé yi quoi. Mhm. ñu naan xoolu waa ji rek lii fekk na ñoom mais loolu dafa ndaw loolu waroon nañ mën a dem parce que waa ji bu dee demee ba dee la fay. Mhm. mais fayu la pour nga tëdd di la daf lay fay pour nga defal ko loo xamante ne ni mhm. amul fenn. waaw loolu de laa doon kaas ci xalam bi léegi. loolu ngay kaas ci bi waaye waa ji moom bañ na. waaw ah, de continuer rek. mais man de mais tiens naa def al naa defal alaaji jaay. mu musul gis ci làmb moom it nag mu génne les moyens. ku ñeme génne moyen. waaw mu génne les moyens. ak bëgg am fit. ni ma nan dem. foo dóor loo bëgg waxal. ba pare nag bàyyi la librement nga def lu la neex parce que boo xoolee banta ma xam ni kii lu ko neex lay def. Mm-hmm. waaw waaw dama ci fo. Mm-hmm. parce que foo dafa baax ci métier bu mu mën a doon. dëgg la dëgg la libéré wu libéré wu du ma stressé aw ma problème yooyu. Mm-hmm. waaw loolu la ma wane waat beneen façon émission lamb. wane waaw waaw a tax nga xalil sa doom sa doom yoon bi yaa ko jaarale sa doom non non sama doom waaw c'est-à-dire moom. doomam lu muy la ko place. lamb day def reportage lamb. waaw Mamadou waaw. c'est-à-dire daan def bu may dem sac. Mamadou ànd ak man. bu ñëwee ma boole koog Médoune. waaw waaw. Médoune bi nekk beneen côté la. boobu ko def exprès pour préparer ko. waaw non non moom moom moo ko bëggoon moom boobu mi ngi jàng sax. waaw moom. mu bëgg ko ma jox ma et puis ma dem ñëwuma ma xool ko mu mu def banta ma toog ci néeg bi seetaan ma ne ah mais tiens kii jàmbaar la ah. mais munu noo woon. noonu noonu noonu ba benn jour bugaan woo ma. waaw. ni ma mais booy boobu ngay àndal ñu ne sa doom la ma ne ko waaw mu ne ma mais doo dimbali nga indil ma ko mu yoroon ma sama laam ma ne ko kooku du ko def wóorut. mu ne ma non jox ma ko rek comme ça après nag. ci la dem ma woo ko ni ko est-ce bëgg nga ñeme nga mu ne ma waaw. ma ne ko demal mais virus bi virusu làmb Bécaye na la la duggee yow. non boobu xale la boobu xale laa mu amoon na ay mbapat booy bambara moo nekkoon sama mbër. Mm-hmm. eh booy bambara kon yow Bécaye yow doo. ah na bambara nan la doon bàqoo ay fan de. ah ah, ah am naa juróom fukki at ak lu topp. juróom at ak lu dama kii rek. waaw mooy nga ay fan. waaw nga ne Boy Bambara nu mu doon bàqoo. waaw Boy Bambara mu musoon dugg si làmb nan lay bàqoo. njaq lay yore. njaq waaw lan lan. <laughs> lan lan lan daan wax fàtte naa. moo doon wax gën tee cere ndaw. non kooku Fallaye la. ah Fallaye waaw kan moo la ci daan toog ba pare. naan kóoto mais am ngeen seen benn boy la lëz. waaw moom xam na booy bambara bu baax. non kan moo la ci daan daan toog sa kaw naan photo Sénégal dafa bëri. jaakaar kooku foo foo de la. foo de bu mu saan daan olof da naan photo. photo fu olof yi leerul yi photo. <laughs> waaw olof affaire am leerul kon daal la la virusu lamb dugg. waaw mbapat yi boobu mbapat bi ñoom Mbiita ñoo fay ñëw ñoom Birahim Ndiaye ñoom Tubaabu Joor boobu ñoom booy bambara commencé nañu di bëre. mais maanaam musuma am benn mbër rek de. Hmm? man damay faral kenn ba ci yàgg ma sensé de. ban kan mooy sa mbër fi mu toll <laughs> léegi nii nii. waaw waaw non am mbër léegi. lu tax non yow tamit booy yëpp samay fils lañu. mais sa biir xol am nga koo ci faral. waaw. waaw waaw waaw. ma ko maa ah. bay. <laughs> très bien Bécaye ñu gis yiw gi. <laughs> colin gu yiw gi. Uh-huh. tey gi. Mm-hmm. tekkaaral gi. muñ gi. xam ci lajjoor xam ca kat yi ñoom ma jooja. ñi ay lajjoor yooyu li ma ci xam bariwul. waaw d'accord mais xam ci ñoom xaar mbay ma jaaga. voilà ah. ñooñu. ba ñu ah, ah, ñuy ñuy ñuy jaale. ma joojo ma joojo nga xam ne ma jooja génn àdduna dégg nga bu yàggul ma jooja ñi nga. ah dégg nga maam bekkaay loolu nga xam ci làmb ji kar macha allah daal di xam ca wayukatu démb ya. sa sa yooyu yëngu yàq sama njàng. waaw moo tax si man man damaa yaakaar ni. waaw tey jii am nañu. digne digne successeur u waaw Aj Mansour Alaaji baax waaw waaw waaye ñëwal ci loolu nit baax waaw nit ku baax nit ku gore nit ku xam addu kooku nag dafa fekke Aj Mansour dafa fekke Aj Mansour dafa fekke Mamadou Dia dafa fekke Lamine Gueye dafa fekke Alaaji sëñ Mansour turandoom sëñ Abdou Aziz Senghor mhm. dafa fekke histoire ñu mhm. du woon nitu rajo mhm. Hadj Mansour fonctionnaire la woon nekkoon ci cabinet ministère nekk attaché de cabinet. waaw ci Chapar. waaw ah la daan àndal ñooñoo ko jël gis voix bi ñu xam ne kii war na mën a def communication. waaye yow ndax nangu nga ne war ngaa mën a fees dell place am moom. yow pour le moment nii. waaw waaw non ñeme woo ko. non damay wax sama dëgg ko quoi Mansour Mansour Mbaye jeex na amatul lootul am. Mansour Mbaye. ay Michael Jackson la non non non non Mansour Mbaye monument la la monument la. ndax yaa ngi yëg. rek. ndax yaa ngi yëg am am am xeex peut-être parce que. li ngay def dafa métti. day am concurrence mais concurrence bi bu bu senee rek bu bu kiiwee rek dina baax. concurrence aayul. mais muy am jikkoy caay-caay ci suuf. ah yooyu dugg ci moo bañ ndax yow yaa ngi sentir ay nit di la ko def. bien sûr yéen entre communicateurs ah, bien sûr mais non non euh, déglu ma. ah kay ndaxte ñoom kuréel gàkk traditionnel yi dañuy kajante ci suuf. waaw loolu fépp la xoolal. yéen ñii dàq kajante. am na ñu leen fi fekkoon falaxe leen. yéen ay falaxe maan ngeen. falaxewuñu kenn yéen suñu tëral yéen da ngeen ñu tëral yéen da ngeen ñu tëral indi problème. ñun ñun déglu rek dama lay wax. ba ngeen ay tëral nga ànd ak kii ak kii. dégg nga ak yow mii. <laughs> ak yeneen booy yu nit yow yu ngeen àndal parce que yow ci ñooñu am nga koo ci ci ñooñu ñooñu am na ku mu ci waroon ci pet xëcc ko. e loolu waxoon nga ko fi ko maa la gën a. <laughs> waaw ah. kii maa ko xam. kon loolu am na. jikkoy grand booy grand. waaw kan la kan la nay leer dañuy waxtaan. waaw soo ko sama waay la quoi parce que yooyu. <laughs> da nga leen tudd fi après ñooñu boo leen invité duñ ñëw après dañuy ruus seen kanamu njaboot. bàyyi ñu eh, suturaal leen kooku sama xarit la. waaw sama tool waaw lu tax nga woo ko ci pet napp ko noonu. non non yooyu ay waxtaan la woon rek après. gars yi dégg naa dañ leen a boole dañ leen a boole un million. waa ji seeg moom deux millions deux millions. waa ji seeg moom deux millions waa ji. <laughs> ni ko maa la gën a. yéen da ngeen bàyyi leen bi eh, yi ngeen di déformé. <laughs> Ah, moo la gën a marqué si sa histoire kii. seetaan lamb wala reportage lamb. Manga. Manga Tyson. Manga Tyson. marqué na ma. Mhm. parce que boobu vraiment jour boobu la reporté. Mhm. ci la ma Walfadjri doog a reconnaître ah. doog a reconnaître ni tey mhm. def na reportage boo xam ne mën na ko jàllale mhm. maa nga tey sax ndeysaan d'accord ci la muus mi génne woon ci voilà muus yeeg junkoob yeeg waaw et ñaari grand lutteur ñoo ko bëri mu doonoon événement bu mag mhm. ma gënoon a nekk ci repo xale parce que boobu yafee alhaji Moustapha Ndiaye ñoo fi nekkoon ñii ñoo fi nekkoon de alhaji Moustapha Ndiaye xaadim Samba Bekaay léegi man man doo daa am fu mu bëgg a jënd man nag su ma toggee sax nag xanaa ngeen xaw a apprécié. neex na face to face bekkaay ñoo ngi ciy ñëw. <laughs> ñoo ngi ñëw man li ma ko bëgg a laaj. yow yaa ko jëli woon wala maa ko jëli. yaa ko jëli woon yow. Ah, ngeen ma neex na boobu pare. Ah, neex na trop waaw léegi. waaw loo gis rek loo gis yéeg da caa baax. maa dem gis bekkaay may defaral yu baax. léegi ñuy joxe xaalis bari ko. sama benn lettre bu ma la dénkoon lettre waaw waaye passe ma lettre bi waay parce que booy mbay Diop mbay moo ma bind benn lettre sama xarit boobu daa nekk Angleterre booy léegi mbay Diop fari mbay bind ma benn lettre damaa bëgg a lire bi fi waay booy waaw léegi xaar après nga lire lettre bi léegi waaw waaw léegi Bécaye waaw li li ma koy laaj man mooy ah Bécaye Mbaye fu ñu toll nii yoratul dërëm waaw lu ko waral waaw dañ koo tuddee <laughs> da kaay jënd pitax. waaw da kaay jënd ginaar. waaw da kaay misui. waaw da kaay jënd coof. waaw woo mbokk Kébé meer ya. waaw mbokk Louga. waaw ndar ñëpp ñëw fees jël këram ndaat ndaat fan ndaat sunu dëkk seen dëkk waa ndaat ñëpp ñëw kenn ma te seen boo jéeri moo ne maa la fi sàmm clinique sengi ndaat waaw clinique seen ndaat lamb jooju ñu la tuddee lamb ja amatu yow noo dundee loolu métti. métti waaw métti na métti lool métti na ni ko waxee. métti da nga caa dépensé. Oh. waaj waajal man nag sincèrement moo tax dama war a sant yàlla daal. Mhm. waaw man bari na ay événement yu may am vraiment nit ñee koy gérer. dëgg la. ñu waaw Sénégal dafa bari nit ñu baax. ñu xam ne bisu bekkaay la ñuy xaar bisu bekkaay la ñuy xaar. Mhm. dañuy dem indi teraanga jox bekkaay. ndeysaan man bu ma amee xew ni ca dëgg bu ma yërëm <laughs> lu fa am xabal ni ñu baax ñee ko fa def. ndeysaan nitu nit ñi la et ki may tuddee drapeau. Mhm. tuddee wu ma drapeau pour jox ma pour ma jox ko xaalis de. waaw Aziz bu ma tuddee drapeau saa wu ma tuddee jëndee drapeau jënd ay nag. jox la génne million teg sama loxo. lu fa waay lekk bu yeboo nga ñaanal ko ci. ak ñeneen ak ñeneen yoon it. xam nga ni tudde woon naa ko El Hadj Malick Gakou. waaw jot naa joxe. joxe jot naa joxe Malick Gakou seetu ci am naak amul. waaw nan la ñuy tuddee nga tuddee ko. waaw dama da sargal sama nit. waaw dama ko bëgg sama xarit la. ah déedéet woyofal bés bi woyofal sa poos. <laughs> mais moom jotoon naa joxe woyofal sa poos joxe na man waxante dëgg. Malick joxe naa joxe Malick joxe na ay millions. lu tax sargaloo la ma ko man. kan yow waaw wala nga sargale ko sa femme wala sa fils wala euh, keneen. wala Mamadou Mbaye Garmi wala ñeneen. wala alaaji Mansour Mbaye nga xool gàkku xam ne day gàkke nga sargale ko ko danaan danaan sargal sa nit sargal sa poos. alaaji baal jàmbur. waaw suñu gën waay. eh saa. Eh, non waxtaan na saa ko waay waay man nit ku baax raag ngay def ak moom xam naa la. waaw oh. waaw Bécaye. Malick Gakou nit ku baax la. waaw ah, loolu werantewu ma ko. ah boobu moo gën nag de. werantewu ma ko Bécaye man sikkuma kenn ci àdduna. waaw non non nit ku baax la àdduna wërngal kàpp ma ci sikk kenn. et puis mu bëgg ma. waaw vraiment. di kilifa te jaral ko lu ne. waaw muy ñëw sama kër. day nekk bi mu nekkee ministre bi mu nekkul ministre la yemale avant muy nekk ministre lan doon ay xarit. man tontu ko sama question waaw sa ci sa question. buy avant muy nekk ministre. non affaire la si Baye dédicace yi jàll affaire la. <laughs> avant muy nekk ministre. ah moom comprendre <laughs> la. yow comprendre la waaw ala muy nekk ministre. waaw la nekk sama waay. la gën a ñu yàgg doon ay xarit. waaw ma xewle. tudde ko bis bi. waaw loolu dong la de dund leen mu def ci teraanga. moom boo ko ko tuddee. waaw boo ko ko tuddee bu ma ko ko tuddee wul lim ciy def la ciy def. mais ba mu amul télé mën nga ko delloowaat ne ko ay la yéwén xew mi amatul. non non moom bëggul yooyu. Eh, waaw léegi bu xew mi amaatee kon day day ñëwaat. bu amaat bu ñu tëggaatee lamb bi. non non fii ñu toll nii moom am na am na ñu ma dese rek ñi ma dese laay dem bu affaire bi ñëwaatee. ñi ma dese moom euh, nañu waajal seen bopp. man sa digganteeg nit ku baax nit ku bëgg Sénégal nit ku yiw nit ku bëgg liggéey. sa teg man moom wóoroon ma man jëmm ji toog lool fa mu ne tey yàlla mën fa yóbbu ku ne ndax jombul kenn ñu koy ñaanal ñu gis nga wax ci wax ju rafet di ci dox ay jéego yu nit ñi yëg ak ñu nit ñi yëgul mhm. sa digganteeg nit nit lokalaay ak fi nga toll nii ci làmb nan nga koy dundee métti yi métti yi keroog bi ñu may xëyee ñu ne ma El Hadj Ndiaye moo ma yónnee benn SMS Luc may nañ ko liberté provisoire. waaw keroog mooy jour bi dàq ci sama adduna. nga kontaan kon il est en liberté mais xam nga rek ah, justice moom du ma ci dugg daal. waaw waaw dafa am nu mu demee. Mm-hmm. Mm-hmm. mais jour boobu moom mooy jour bi dàq ci sama dund parce que kooku du affaire làmb. réer sa dëkk ma dëkk Grand Dakar. naa ko ñu jàkkaarloo. sa la mu doon sama xarit. dugg ci làmb jël lépp jox ma. combat am yu bëri maa ko waxaale. Mm-hmm. maa def lépp. comprendre nga sama xarit la dama toogee vendredi ma dugg sama oto bu làmb amul maa nga mbuur mhm. fa laay toog ba lundi mu ñëwaat bu làmb amee midi ma jógee fa ñëw reporté dem nga seet dem nga seeti ko waa dem naa mais ma dem bariwul ñu lan nga dund ba premier jour ba nga àggee ci prison ba moo tax dootuma fa dem noo ko dundee dinaa fa dem sax mais bu ma fa demee tey dinaa toog lu yàgg noo ko dundee dama nii la dama jooy foofu parce que Luc nit ku baax a ngi noonu boo bëggee gis borom xol bu rafet jàppal Luc Nicolas bul sonn xolam rafet na yéenewul nit lu bon Luc amul temps boobu du jëw mhm. ay jëw yii bu ngeen toogee yooyu amul ba pare nag Luc kaw kaw la Luc ñoonu ngeen gis teg ko tubaab Luc paysan la waaw euh, looloo euh, tax mu mën a euh, nekk ak moom boo gisee ses amis bu la bu na wonee ñan xaritu Luc nga xam ne lig du bokk ci moo tax fi mu nekk mm-hmm. yaa indi yàlla na ko yàlla jële foofu waaw loolu daal koo ñaanal koo mu dal ko ndax am nga koo fi ñaanaloon ni ko yàlla nañu diw atte <laughs> alaaj bul ñëwaat foofu waay kii ku mu ñaanal da lay dal bekaay ah? uh, démb bu laajte wax doomam ma àggale alaaji ñëwal <laughs> kër gi sa kër la yaa ngi koy wal ñëwal dafa am ñaari laaj ci ma lay laaj benn muy en tant que consultant bi nga doon ci làmb ak expertu làmb quoi waaw lan nga gis na la war a yokk ci làmb ji ak lu ñu war a wàññi muy benn question bi. waaw benn bi mooy dañoo am gan bu rëy mu jóge fi barki démb. muy Obama si discours am mu ne bëggoon na toog Sénégal seetaan làmb wax jooju ba nga ko déggee nan la la def donc ñaari question yi daal laa. mooy njëkk tontu bu mujj. waaw bu la ci xam dama ci mujj. waaw Obama président la. waaw premier puissance mondiale. moo ñoo ëpp xam-xam. ñoo ëpp doole ci àdduna bi. Mhm. buy dem ci réew day xool réew ma bëgg. dëgg la. booy dem ci dëkk da ngay xam lan lañ bëgg lan lañ fay waxtaane lu fa xew américains yi ñu ngi partout ay soodaak kumbaak yi ngay dégg yëpp ñoom la dañuy dem ni ko Sénégal li fa xew du question wu daa bëgg làmb de day laaj li xew ci réew mi mm. ba ñu wax ko li xew ci réew mi bu ñëwee ci loolu la ñuy naxe mm. pour wane ni relation bi am na mais o loolu sax xam nga du ko gën dañ koy jël te xam naan man xam na ni noonu lay demee mhm. Mhm. xam na ni Sénégal làmb fi xew mhm. làmb la nit ñi di suivre bu ñëwee nag pour bën a doon suñu xarit danaan day wax loolu parce que nee na far si olof voilà mi ngi noonu ñoo far mi yooyu lay def beneen bi moo doon lan lañ war a yokk lan lañ war a yokk ci làmb ak lu ñu war a wàññi ñi ko war a yokk c'est l'état l'état ji ñi ci waroon a liggéey yëpp liggéey nañu ci dëgg la fexe nañu ba indi nañu ko fii mu toll. li ci des état bi la. ñoom ñoo war a jóg xool naka la ñuy jàppalee écurie yi fi nekk écurie par écurie écurie par écurie jaarale ko ci biir CNG. may doole CNG CNG ña fay nekk du ñu fayeeku ay fonctionnaire la ñuy liggéey feneen. lan la ñuy fayeeku ay bénévole la ñu. ñii ay docteur la ñu ñii professeur d' université ñii médecin la ñu comprendre mm-hmm. ñii leneen la ñuy liggéey ñooñu la état bi. war a taxaw. jàppale leen may leen doole mhm. ba ñu mën a gérer làmb mhm. ba pare ñu def fi arène boo xam ne dañu koy naxee du am bi du am de bismillah non ah, baax na bu amee daal ah ma bett bismillah waaw yàlla na am mais gëw ko mhm. waaw man it waaw gëw ma ko dafa am lu ma la bëgg a laaj wax ko dañoo dugg si oto ma ak Alaaji mi ak ak Moussa Ndiaye mi dégg ku mel ni yow ku am xam-xam kaar ku fekke démb ku mën a yar ku xam lu yaru ni senegal yàqu na te làmba ko yàq ndax bu ñu demee ba naan VIP Sénégal ay mbër lañu bu ñu demee ba naan waxuma ko de góor googoo ko doon wax bu ñu demee ba naan gaynde géejawaay mbër la naan gaynde Parcelles Assainies mbër la kon Sénégal yàqu na ci kuy ngembu di kii di di sëgg. dellu ni sunu éducation doom yi yàqu na ndax. xam nga man mi jamono yi may tayaatu doon nañu wax ni Sanex yàqoon na éducation booy xam nga Sénégal moom lu xew rek la ñuy bañ. naan yàq na suñu doom yi day wax ay xutu xataak xireen deen de. waaw. ñu ne parce que arène nationale boobu ci laay ci loolu rek laay dem. non saa sa xam naa théâtre lawbeem boobu moo ko teg wu nu ko dal. waaw waaw waaw bokk na ci maa ngi ñëw. wutal leen aareen jot euh, baax daf ciy baax ndax nee ñu école yi ñuy lambe. li ñuy entraîné. tax na benn xale nangootul. jàng am naa ci cas ndax sama benn doomu xalit mhm. daa génn récréation am prise bu mu dis ci làmb ji di ko essayé ci rakkam. damm sama uh, loxo uh, doomab xarit ba mu ngi fii ci faan gi ñu defal ko ay kii ay weñ daa mel ne nag waaw léegi loolu nan nga ko gisee ak làmb alal ji muy dégénéré ndax baaxul ci Sénégal ndax baaxul ci Sénégal baax na ci Sénégal ne si nawet la ñu ne waaw bët chep mi ngi bët chep mi ngi ngoonal gi moom foog ñu wàcc ngi chep dama ne léegi làmb yàqul dara ci réew mi dara mhm. làmb yàqul dara dara xam nga lan moo yàq réew mi développé loolu nag mu leer nañ réew waaw day am ay bànqaas. waaw ñii dañuy suba. <laughs> ñii basket waay tey laa am invité waay. ñii musique. ndeysaan. ñii def rugby. dem jàng nekk université. a dem yore bureau yi. Mhm. voilà jox ñii dem jàng aw xuraan yor daara yi. ku nekk loolu mooy ensemble boobu. Mhm. waaw mooy doon un peuple. Mhm. mais ku ci nekk. sa bànqaas ga nga toog. waaw da nga koy réglé. dëgg la waaye bu ñëpp bàyyee fan newoon dem ci benn mhm. boobaay la jël réew mi looloo waral ñu ne làmb ji la jël nañ intellectuel yi mhm. dañ leen a ñaan ñu yor réew mi waaw bàyyi làmb ji lan mhm. lan leen dénk ñu yam ca ñu yam ca économiste yi waaw def économie policiers yi policiers yi sécurité ñuy gérer ku nekk daal waa làmb ji gérer làmb waaw ku ci nekk gérer la nga war a def waaye ko def xam nga ñuy def làmb ji tey ñëpp a ngi si ko amul mbër néew fii ci réew mi waaw koo gis am na mbër ñoom ñëppay dugg ci débat wu làmb da am na par exemple xoolal tele yi télé yëpp ah fukki nit ñooy def débat télé yëpp mhm. ci làmb ci lépp waaw ci politique bu politique ubbil télé bi ña nga fay invité télé bii bu subaa ñooy doon invité télé bee connaît tout mën naa ne cim réew doy doy waar. la nga leen di seetaane ci émission ba am ca bee télé. waaw bu subaa bu bee télé xewlee. Hmm. ñoom ñoo fay dem. Hmm. ñoom lañ fay invité. réew ku nekk da ngay yem ca la nga war a yor. dëgg Bécaye Mbaye soo koo dégg ci débat wu. politique économique. Hmm. politique du ko def. mais bu ñu demee waxoon naa ko barki démb. ministre de léducation éducation am na problème ak enseignants yi. pour mu jéem a kii day dem benn mbër teg ko ci wetam di wane ni kon am na ñu mu àndal. mais loolu am na fe dëgg la dëgg la homme politique boo fi gis. bu sañoon buy génn bokkaale benn mbërëm. waaw ñu àndaale ñooy gën nga diw ak Balla Gaye ñoo àndoon ah. muy ñàng-ñàng. Mhm. wala diw ak Eumeu Sène ñoo àndoon. loolu loolu lan la. influence boobu ngay wut ci mbër bi ba pare bañ làmb yokk mm-hmm. mais làmb bu yokkul boo yooyu lu ñuy def mm-hmm. ñaata nit ñoo am licence mm-hmm. plus de sept mille gosses yu am licence toog fii ngeen ni làmb du yokk et puis beneen problème bi ñun la ñuy woowee illettrés yi ne ci réew mi ñun communicateur traditionnel mais ñun jàmbaare nañu ñafe nañu ba làmb yokk waaw ñoom borom xam-xam yooyu jàng jeexal téere yi waaw ñoom it duñ góorgóorlu ba yokk nee nañu moo dóor boppam pour daw garaaw na. ah Eumeu Sène xanaa day xaru. ah ah, ah gars yi dañoo ko wax. waaw gars yi ñoo wax yëpp. kon du dëgg. gars yi wax lépp. kon jenn gars yi ñoo wax xam nga man xam nga lu ma a wax. man lu ma bëgg a wax. dafa am question boo xam ni dafa am xam ni kii tontuwu la ci. waaw muy mooy tey jii bu ñu nee mbër mooy gaynde Géejawaay. waaw. da nga cee war a tontu parce que mais mbër mooy gaynde géejooy parce que ci la ñu wax ci wàllu kooku la sa borom xam-xam boobu ci oto bi moom xamul li ñuy wax moom xamul dara xamul dara sa borom xam parce que il en général mais en particulier et puis nañu bàyyi waaw kay ñuy wax waxu Balla mooy le lion de la banlieue mais ci wàllu làmb mais nekku ko ci aw xuraan nekku ko ci comptabilité nekku ko ci leneen ci basket ci làmb bu ko weddi kooku la muy weddi na dem ba déglu ba xam lan la ñuy wax. Ah, ku nekk daal wàllu wi nga féete yaa ki samay yaa ki say gaay booy déglu waay da nga koy déglu ngir xam lan la ñuy wax na ko. kon ñoo ngi gërëm. waaw da ngay kontaan nañu waaw gërëm. Youssou Ndour moomu. waaw ah. waaju baax la. wax ko ca kaw. waaw waaj bu baax la bu dee sa xarit la. Hmm. nga nuyul ma ko bu baax. non moom nag gëj na maa gis. Hmm. waaw bëgg mu gis la waaw na ma gis. moom xam na ne sa war na maa gis. biraan doom ji. naka hmm. mën a nee ko nee ko cent pour cent. waaw moom c'est bon. njaga moom na ko njaga. sama xarit la waaw ñun nag 100 pour cent wu ñu. ñu ne leen ay 10 pour cent ay 5 pour cent. daal ak biraan.

di gërëm Bécaye borom face to face. face to face. parce que tamit laa ilaaha illallah ànd ak beurre jadida euh, ànd ak mayonnaise jadida. waaw waaw ànd ak dawlinu jadida dama andil ma ko. dawlin ji waaw ndax Bécaye da koo war a yóbbu këram da nga koy yóbbaale. tagal fee ah bon yooyu yëpp dama koy yóbbu da nga koy yóbbu da nga koy yóbbu. waaw ñu ngi leen gërëm bu baax a baax alaaji lii la lettre bi. waaw Bécaye tàggoo gërëm nag sama xarit. parce que Bantamba googu laa bëgg sama xarit monsieur Mangane. waaw Mangane waaw. borom Maroc borom Maroc. borom euh, eh, mën naa nuyu sama benn xarit. waaw ah bon. kan la kooku Serigne Saliou Samb la tudd waaw Mbour la nekk mooy président ASC Stade Mbour waaw Sall maa ngi lay nuyu Sall la nga bu leen yàq boobu de ah. Sall dañ fay ànd sax béykat ah, ah kii nag dinañ ànd Mbour léegi nga ne may jóg Fane Mbaye moo ma ko envoyé nee na ngeen jàpp ci ndax moom mhm. en 2012 dafa amoon beneen télé bu mu demoon feeñ fa bi décret bi wàccee ñu ni ko télé bii moom pare nga ci. waaw ndax daa amoon feneen foo feeñoon. il faut nga bind nag demande. d'excuse. waaw booy bi ñu si kër gi mooy booy bi. Mbaye Diop Fari Mbaye Diop Fari Mbaye. mais baal leen ko ndax turam mu ne ni le juillet deux mille treize. <laughs> xanaa jàngul tubaab araab 2013 sax la bind. le juillet 2013. yal nañu yàlla may ñu fekke ko. 2013 la bëggoon bind mu ni bonjour. waaw. monsieur. Uh-huh. monsieur directeur TFM Ndiaga Ndour. waaw dugg na. déglu rek. année 2012. Uh-huh. j'ai tourné avec Walfadjiri. Uh-huh. Ramadan. on m'a payé 30 000. grâce à ñoño. ñooñu man mooy yaa faatu. baa mbara bu jànkeen la. mu ni je demande pardon pour geste. et je voulais Talawaay avec TFM Mbaye Diop Fary Mbaye. Oh, eh, nañ ko baal ñu. kooku jar na baal jar naa da ngaa wax ju neex. waaw mooy yéen a ngi seetaan. Mbaye Diop nu ko waxatee ko waxatee ba ko ni Ndiaga nee na baal na ko. <laughs> Ndiaga baal na fi baal non woo Ndiaga mu baal. nan la ko waxatee woon ci ah. Bantamba Bantamba bi ngeen ko waxatee woon. yéen a ngi seetaan. mu ni Bantamba. 2STV. xam nga lu ñu bëgg a waxal. waaw waaw Bécaye waaw ngonal la ñu bëgg ngonal rek lañ bëgg nga waxal. ngonal comme ni ngay waxee Bantamba. waaw fii ci kër gi. ngonal ngonal début bi moo garaaw quoi xam nga Bantamba dafa am ba. ngo ngo. ba ndooni ngo. bu doon wax ngo. kolo kongo ndooni ngo. ngonal ak lan TFM. waaw. waa kon day leen seetaan ngonal. ajjuma ju ne. ajjuma ju ne. ci TFM. waaw ngonal. ak TFM. ñëwal ci bi ngay yaf yow. ban Bantamba ak 2STV. daaw ak ban Bantamba. gërëyee la waaw waaw waaw Sadida. waaw yóbbaale ko kër ga. kii bëru daw eh, ba buuru dawli nii. waay waay waay waaw. yii rek ngeen jox waxal na yeneen yëpp lañ lay jox. am na yeneen am na yeneen am na yeneen. ah déet ni ngeen ko bëgg a doxalee. baax na yëpp lañ lay jox. sama sama njaati gi xanaa yëpp lañ lay jox. koor gaa ngi ñëw waaw dañ lay gunge kontaan naa ci yéen kontaan naa ci ñu xarit nga waaw na yàlla yokk taxawaay bi mbotooy mbot moo ko doon wax mën nga leen mbotooy mbot moo ko doon wax xam naa daa gis mbot tiir lay lay la la yaa mën ci Sénégal yooyu yëpp ci la yéen it yéen a fi man xam naa leen bu baax ñàkk sama nga yiw nga baax nga comédien yëpp yéen a leen man amoo problème kamoo <laughs> ngi ana kamu kamu ah, maa ko ne mu xaar ma ak mën a costume <laughs> béykat yi kontaan nañu. nañ dem nañ dem social ba nuyu Kama.